laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha lëkkale sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi tey ñu gis leen ci bis bi ñu bëgg a xam taxawaay bi ak soñe yi lépp rek aju ci ndigal lu tëdd li leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokk yi ñoo ngi leen di nuyu fu waaye mën a toll di ñu seetaan wala nga ñuy diglu ñoo leen di nuyu te di leen siyaara baax a baax a baax di sant baax ci laaj bi nga laaj Jazboul Mouride moom ah, kuréel la boo xam ne sëti maam Cheikh Fall yi la lëkkale mboolem sëti maam Cheikh Fall yi ak sëti Serigne Saliou Fall yi ak njabootu Cheikh Fall yëpp nag ñoom la lëkkale ngir li liggéeyal Cheikh Ibra ci biir kër gi bu mbir yi mel nii amee nag xew-xew yu mel ni yii muy ndigal lu mel ni lii ñoom it jox ndigal ñu nekk ci kanam taxawal ko fépp foo xam te ni bii dafa war a taxaw ngir organiser ko ba organisation bi mel na mu war a mel loolu mooy seen taxawaay boobu ba tey nag bi sëñ bi joxee ndigal li ba tey ñoom ñu ngi def ay réunion ci wàllu gépp nag ngir bëgg bis bi jàkk ba mel ni ko sëriñ Amdi Fall bëggee te ni ko sëñ di bëggee nag mooy ni ko sëñ Muntaxa bëggee ñun ay soldaare sëriñ Amdi Fall lañu ci lépp loo xam te bii ndigal la lu jógee ci kër Serigne Touba ñëw ci kër Cheikh Fall dañuy daal dañuy daal taxaw futtee ko taxaw ngir liggéey ba mel na nga xam te ni noonu la ko Serigne Touba bëgg loolu rek mooy mooy taxawaay bi. boobu ba tey nag euh, njaboot gaa ngi ci liggéey bi ñu ngi ci biir euh, barab bi fenn fu ci ne ay membre nga fa taxaw di saytu liggéey bi ngir mu ñëw dara bañ cee dugg lu bokkut ak li Serigne bi bëgg lépp sell turu yàlla wu set wu leer naññ wu bégal Serigne bi. loolu mooy seen taxawaay lépp lu ci nar a rax nag lu bokkut ak loola ñu fexe ba gàntal loola loolu mooy seen taxawaay ci jëpp fànn ci xeetu xéewal yeeg naan ak lekk lépp luy de luy tax doomu aadama yi seen nekkuwaay fii mën a mën a ñoŋ ñoom ñu ngi ci biir loola di ko saytu bu baax a baax lépp luy sécurité itam lu tax ñi ñi seen kaaraange mën a ñoŋ fii ci barab bi loolu it ña nga ci biir lépp luy sécurité wàllu kilifa yi itam nga xam te ñooy déplacé wu ci kër yi di ñëw ci barab ñoom it ña nga ca loola ngir war leen a gàttandu gunge leen ban àgg ci barab yéen war a dal ñu dal fa toog mën a teewlu liggéey bi ba mel na morom loolu daal mooy taxawaay bokk na ci bokk li ñu mën a leeral la gun ci taxawaay bi nga xam te ni moom mooy taxawaay Jazboul Mouride. kon mën nañu ne matuwaay yëpp rek Jazboul Mouride jël nañ ko waaye bis bi lëkkale ay taalibe ak i kilifa ku nekk di ñëw boo doon soññee ak a ñaaxee mbokki taalibe yi nga xam ne ni sañ nga leen so lan nga leen di wax ci bisub tey bi li moom kenn ku ci ne ci taalibe yi ku xas ba jébbalu ni Cheikh Ibra Fall nga yaakaar rek soññ nga sa bopp ndax sañoo mel benn melokaan bu dul meloo maam Cheikh Ibra Fall rawatina nag maam Cheikh Ibra Fall mu jóg jëm si kër Serigne Touba am na melo bu muy mel am na melo bu muy mel ndax dañu nu ni Cheikh Ibra bu musaan jàkkaarloog Serigne Touba day tëx gumba lu loole lépp cofeel gu metti gu mu amoon ci digganteem ak sangam bu tedd boobu moo ko waral ñun fii bu ñu fi toogee bu ñu fi taxawee ci ëttub Serigne Touba war nañ koo ci sunu yaram suñuy cër war na koo yëg suñuy xol war na koo yëg dara luñ naan ab Baye Fall waru ko woon a def wala waru ko woon a wax fii ci kër Serigne Touba warut bàyyi ko ci benn taalibe bi kenn ku ci ne war ngaa jël say matukaay bu baax a baax a sa col ci sag doxin ci sa waxin ci sa bépp comportement ba méngale sa bopp ak Cheikh Rafal ci xemmeem teef gi Serigne Touba mii fi nekk tey am ci Cheikh Ibra ba tax mu woo ko di ko taxawuloo bis bi xemmeem teef boobu na ko Serigne bi gis ci yow loolu mooy sañ-sañu bépp taalibe bi mooy sañ-sañu bépp soppe boo xam da ngaa sopp Cheikh Ibra jëm si fii tey loolu rek la ni soññee danoo bëgg képp kuy ñëw na nga jël matukaay boobu melaw Cheikh Ibra Fall buy ñëw ci kër Serigne Touba na nga ko mel loolu rek la fii teewoo kii woote tey di sëriñ Touba loolu rek la teewoo dafa bëgg Cheikh Ibra sopp ko ngir melokaan ba mel kon nag ñun ñi nga xam te ñoo yaakaar Cheikh Ibra di ko roy di dund ci moom nañu indi loolu ci kanamu Serigne Mountakha ba mu doy sëkk